pas d'interconnexion entre les services d'état civil ak euh, ak ak DAF. Uh-huh. bu ngeen nekk ay jumeaux nuru. Uh-huh. bokk ak baay. Uh-huh. juddu même bés. mais vous avez deux pièces d'identité qui sont différentes. bien sûr. toutes les pièces d'identité les numéros d'identification nationale se trouvent dans le fichier. on n'a même plus en fait besoin mm. de fichiers. Mm. ñun on a mis dans le cadre de notre coalition te on va le proposer à l'État je sais pas s'ils vont l'accepter ou pas <laughs> dès lors qu'ils ont validé ce fichier parce que aussi xam nga réew il faut ku nekk ku am loo xam ne daf ko war a mën a doxal parce que dañ toll ci loolu parce que ñii ils se sont enlisés waruñu nag di leen seetaan ba ñu jël réew mi dugal ko ci loo xam ni kenn du ko ci mën a génn on a un fichier qu'on qui a été euh, sécurisé au niveau de l'OMPI, c'est-à-dire c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc il y a c'est des experts sénégalais qui qui l'ont qui l'ont qui l'ont qui l'ont ñan ñoo ko ñan ñoo ko ñan ñoo leen ko ñan ñoo ko sabab ñan ñoo ki ko sabab c'est un expert en matière électorale du ñàkk président. ku ko financé c'est monsieur Bakar c'est lui-même qui l'a conçu et qui a travaillé dessus pendant vingt ans. il l'a fait donc actuellement le fichier est à l'étude dans le Michigan aux États-Unis donc ci benn ci benn ci benn global global euh, ci ci ci benn entreprise global voting system. Mm. aux États-Unis donc ñu ngi koy étudier pour mu nekk un un fichier bu ñuy appliquer partout. dootoo soxlaati à la veille de chaque élection. on peut créer un fichier en un mois. mën nga toog dugg j'ai le lien même dans mon portable après dinaa leen ko jox su ngeen bëggee ngeen testé ko da ngay dugal sa tour tu t'inscris avec ton portable nga photo sa bopp tu vas dans le fichier directement jour u vote bi ñi nga xam ne dañu décédé c'est le plus grand problème en matière électorale naka lañ leen ciy génnee léegi ci biir ci biir logiciel bi mhm. maanaam dafa am état civil mhm. boo xam ne sénégalais dañ ci nekk sur la base toujours du fichier bi nekk a la DAF soo décédé hôpitaux yi également ils seront équipés de ce dispositif. soo décédé ñu dugal sama man maa suul. non non non c'est pas ce tour. dañuy niveau informatique c'est ça. mais mais quest ko déglu mais wax nga ba pare mu wax. bàyyi leen mais moi je vais rentrer c'est waaw mais li muy wax bu mënee nekk. nekk mais mënuñu nekk di wax. mënuñu nekk di wax ci ay élection yu war a ñëw nii. yu war a wax ci àll kala gi nii ñu c' est vrai li ngay wax nii mën na nekk mais convoqué une solution convoqué ah non mais tey bu dee tey tey ci plateau bi la solution bi feeñee. bu dul local yi di bu bu. mais comme ci local la ñu wax dañu ne ci local léegi léegi en fait. état ah, civil Charles ñu ngi koy ah, ñu ngi. xaaral nga ci il faut que organiser rencontre bi ak Antoine Diop. may leen ah, ah il faut que Antoine Diop recevoir. may leen Mansour mu xam nga xam nga par exemple mais li ñuy wax li Charles di wax ni opposition da koy imposer gars yi non non c'est pas ça confronté à la réalité de de l'officier d'état civil bi toog comme il dit est-ce que loolu mën na nekk mais tu vas faire des cartes d'identité programme d'informatisation de l'état civil depuis quand li muy wax li du mën a nekk allez léegi on laisse continuer Mansour xam nga Mansour foog ngeen jël pouvoir bi. Ah. j'ai entendu Mansour d'accord nga ci loolu. j'ai entendu même Omar Gueye dire qu'ils ont mis 16 milliards dedans. Ah. les pièces d'identité yi nga xam ne moom lañ mujj a defar on l'a fait à hauteur de 50 milliards. mais loolu dafa bëri pour Sénégal te antoon nañu ko te soxlawuñ ci def xaalis boobu loolu moo gën a simple. mais léegi su dee on a d'autres intentions de derrière. milliards c'est trop. waaw mm. loolu c'est trop ce qu'il faut faire mooy avec le fichier donc je vous parle et on va mettre ça à la disposition de l'État à la disposition de l'État ñoom mën nañ ko xool oh. càmbar ko mm. les Sénégalais peuvent voter de chez eux. su dee amuloo su dee amuloo maanaam tu n'es pas connecté. mën nga am benn code comme ça se fait avec les transferts d'argent tu introduis ta pièce d'identité mu valider ko automatiquement personne ne pourra voler deux fois et les élections non xaaral ma déglu ko s'il te plaît non non attendez non non non mais Charles les cartes d'identité n'ont rien à voir avec l'état civil mais ça veut dire la de